Bravo, Magen, Bravo. combat bi dox ci diggante Fils sa Ndiouga ak Gouye Gui mbokk yi Fils sa Ndiouga moo ñëwoon ginnaaw guy gi la nu jàkkaar moo takk bopp bi moo sobi ci bopp bi ñoo ngay lewaatoo ñoom ñaar Fils sa Ndiouga teg na pied droite Gouye Gui teg pied gauche pied droite moom tamit ñoo ngi ca côté saako ya Fils sa Ndiouga ak guy gi nu dóoranteegunu nu ñoom ñaar dañuy nappante eh guy gi jël na ko moo ngay xeex génn loxo ba si meeku na Fils de Ndiouga loxo ba si meeku na Fils de Gningue a ngi toog loxo baa simeeku médecin yaa ngi koy xool médecin yaa ngi ci Fils de Ndiougo di ko xool dañoo bëgg a delloo loxo bi wala lu ñuy def Fils de Ndiougo médecin yaa ngi consulté wu seen bi di ko xool ñu xool fu muy mujjee mantel mo Op journée Habib Farkhat production tey samedi 23 juillet 2019 wala 2022 <laughs> waxul ma 2019 ca Covid ba surtout Falang la ak Boy Jason ñaari xale yaa ngi noonu Boy Jason moom lañ jàkkaar lool surtout Falang moo ñu won ginnaaw Boy Jason mii nag Adama moo fi daanoon caatu yaraax mooy. defet bi caatu yi njëkk am ci làmb booy josoon mi moo ko daan setu falang lay jàkkaar lool doomi mbar jàngil bëre yàgg-yàgg des na la ñam ah Ousseyn looy def nii ah da ngay orienté ya tàkk na mu leer neex waaye yàlla jàngay taw ba tey bàyyeegul walaay ndeysaan bu kenn taw bi yàq na ku dul may sa bopp loo am da ngay jël borom taw baa fa jaar caatu yaax. stade Iba Mar Diop jël bu rëy waaye la ma ca jaaxal mooy caatu yaax nee na ñoom ñaar ñoo bokkoon benn sëriñ mu daan dem ci sëriñ bi sëriñ bi di xóoyal ay omo di ko jox muy sangu. bi mu ñëwee xam nga ko daan. loolu ci ba mu daanoo gëmul ne daanu na. booy joson ak sëtu falang. ndeysaan. mais bu ngeen ko takkul day dem de bu ngeen ko takkul day dem. andil bëggoo teelu ma ko de bàyyi lii moo ko yóbboo ci baabul moo ko yóbboo ci baabul Adama combat noonu waaw combat baa ngi noonu Boy Jason Boy Jason ak Satu Falang Ousseyn demal nga toppatoo demal andi Boy Jason ak setu Falang ñaari xale yaa ngi setu Satu Falang moo ñu woon ginnaaw Adama xoolal booy Diosone ay kombaam da daan gaaw xaw bii ndax nan lay def arbitre bi laaj na ay sixième Boy Diosone Sëtu Falang pare ngeen arbitre sifflé na li ngay def de xamoo ko Sëtu Falang lii ngay def dañ lay dagg directement boo génnee te dangay ngay génn ndax tegtal la am na lu muy laaj am na lu muy laaj jox leen ko ko. jëlal ki koy jox à droite waaw da koy jox mu sotti kooku après mu duggaat ci biir waaye directement kay dañ lay dagg directement la dëgër lii la defoon ba muy bëreeg Boy Niang loolu kenn dootu ko fàtte boy yow sëtu falang foo jëm dugal ca biir pare na dellu na ma nga jëm ca xare ba aadama moom sëtu falang doomi mbar jàngil bëre yàgg yàgg des na la ñam wallaay ndeysaan am na lu muy takk ca tànk ba at bi da koy xoolaat ndax niin na walla niinul loolu suba la falu Ndiaye borom Ndiaye production wallaay suba dina neex le 24 juillet loolu dafay neex nee na dañ koy fomp. bul ci kaf bul ci ree. bul ci kaf bul ci ree teel say ginaar jàpp sa bopp. teel say ginaar jàpp sa xam nga ne mën nañ laa jaxaseeg réew mi nag mën nañoo jël ginaar yi jël combat bi. <laughs> eey mbay Boy Diosone sëtu Falang noo gisee combat bi noo gisee combat bi xanaa nekkoo fi wax yomb na de waxal baax na avertissement directement pour sëtu Falang benn sëtu falan arbitre sifflé na Boy Diosone moom lañ moo njëkk daan caatu yérax ndaanaan bi Sëtu Falak moo ñu woon ginnaaw combat buy neex la daw na yooru yooru la def moom Boy Jason ana luy xew yàlla jàngay taw su ne Habib production la Habib Farxat production la ji de daa yendoo taw ku dul may sa bopp lu la yàlla jox jëlal ba tax na taw bi bu kenn yàq na walaay noonu la demee maam jaara walaay ndeysaan Boy Joson à gauche mu bañ Seydou Falang à Boy Joson à gauche ñaari xale yaa ngi noonu mi ngi rokkas ci suuf moom Seydou Falang mi ngi ñam ñoom ñaar dara xewagul yéen ñu ñuy suivre ci Wassare Lamb TV walaay ndeysaan li lii làmb rek a ko man suba ba tey muy taw aadama nga nekk fii Adama ku la bàyyi woon kër ga nga teg sa caayen di xaar la wala deuxième naan heure bi fan la toll ak làmb ja ku daan waaye jàmbaar ca waar wa jóg dóor waar moo la war moo ma war Adama dóor ci suuf sëtu falang booy joson dara xewagul fële ca stade Iba Mar Diop Petit Baye Fall ak Iba mécanicien ñoo fay jàkkaarlool drapeau Papa Ndiaye Aïda Mbuub Serigne Modou Niang def loolu combat bi bu passé 5 tonnes mooy ñëw ak waa Sintor combat réew mi booy Joson sëtu Falang yéen ñaar bu ngeen jàppee bëre bi day tëju Joson sëtum Falang attention fàqat na ko dara xewagul Boy Joson sëtu Falang waaw dafa ri tax taw bee tax Boy Joson sëtu Falang doon ko suuf lu mën a possible la soxna jaara parce que booy josan gis nga ko ngemb bi mu jàpp mën naa fàqate gauche parce que fi mu jàpp dafa dëgër aha noonu la demee añ na déclenché mbot da koy daan jël ba rëy na eh, surtout Abdourahmane Ndiaye falang bi boo ko defee da nga war a def boo ko deful da nga koo war a def wallaay ndeysaan kaay surtout falang e ma ngay jaayu xale baa ngi noonu Abdourahmane Ndiaye fala ngay sa maam lii nga def boo ko defee da ko koo war a def walaay boo ko deful da ko koo war a def ma nga noonu jëlal booy joson ñëwal fii droite jël ko booy joson a ngi noonu bañ na de ma ngi xool daanu na jël ba leer na jaajëf Adama ak ki nga xamante ne nii mooy Wassintor ndeysaan diggante 5 tonnes ak Wassintor 5 tonnes moo ñu woon ginnaaw Wassintor lañ jàkkaar lool diggante 5 tonnes ak Wassintor arbitre wax leen li làmb bëgg ak li làmb bañ Wassintor ak 5 tonnes aca Wassintor door na 5 tonnes fayu Wassintor dooraat na 5 tonnes Wassintor door mu daanu ma naam diggante 5 tonnes ak Wassintor ee eh, kawo kawo ma naam cinq tonnes waasintoor aca wuraw a dem na këng waxi mag dem dañ taale am joob joxal njaay e eh, bul demal la nga mënoon ey la ilaha illallah hey la ilaha illallah diggante cinq tonnes ak waasintoor xeex ba baaxoon na ey waay waasintoor daan na cinq tonnes waasintoor daan na cinq tonnes la ilaha illallah waasintoor daan na cinq tonnes hey mbaru bool bool ya daan na eh mbaru Ilimane Sarr ba daan na doomu Medina ji daan na xale bool bool bi daan na muy Wassintor ndeysaan doomu Medina la ndeysaan doomu ki nga xamante ne nii mooy village Sène ndeysaan oho mënul ñàkk mii rek demee Wassintor Get him. Mbar nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay. naka mbégte. waa sant yàlla bu baax julli si yonent bi. sant sama yaay bu baax a baax a baax sant sama yaay bu baax sant sama yaay bu baax a baax a baax. mbër ñu gis ah, arbitre bi soufflé combat bi nga daw ba ci ginnaaw taxaw am loolu laaj ay tegtal la wala da ngaa xam sa adversaire. non combat moo laaj loolu rek ñun danoo danoo ànd ak suñuy gànnaaw ku mel ni jamteeri sama doomu day Tony Junior Libidor buñ la nee defal nangam rek loolu ngay def le combat bee laaj loolu bokk si gàttal. moo laaj loolu waaw. li man mbër laa. damaa toog mbër laa doo ñu ko wax ndax sëtu Abdourahmane Ndiaye Falang boo nee mbër la yàq nga wax ji. damaa toog ñetti at nekk si ay jafe-jafe gisuma kenn bi may ñëw daal lay ma sol sa dama kaa àbb oto bu ma indi sa aw ma fa parce que combat bi su ma ñàkkoon tey damay bàyyi làmb dama demoon ba amuma kenn ku ma jàppale. billaay wallaay mais ma ñëw ak sama jom ak sama njàmbaar ku mel ni sama doomu ndey jam téeri jàpp ma di ma bëgg a rey billaahi li ma won a bëre sax mais sant yàlla quoi sant yàlla bu baax. foo jëm. waaw na ma gars yi xaar booy yi nii cooni ñoom aada faas booy yi nan ma faas ñoom aada faas waaw. beneen babat ma nag moom aada faas. leer nañ mais nan ma xaar damay ñëw dafa am lu ma téye woon loolu dañ na. la dafa am lu ma manqué woon. amaat nga naa ko. yow ñaata mbër nga war a cité yow aada faas rek nga cité. waaw waaw lamb coow la rek. adversaire yi fi nekk yëpp pare naa pour bëreeg ñëpp. combat suba yi war ngaa mën a samp ndënd. suba kan ak kan la. yi waxtaan. non Mor Kankang ak gaa yooyu. ku si daan bëgg naa leen. tonnerre ak Dame Sène ak Dame Sène dafa am mbër bëgg naa ko Liss Ndiago ñooñu ñu bëre. Ndiago waa Liss Ndiago. yoonu Saba Ardo ku si daan grand leen. loolu dee na léegi. biti fanaan léegi ma ñëw barki yonent eh man sëtu Abdourahmane Ndiaye falang laa Massamba yi Miri Ndaw Baydu Raas boo weddee li ma wax demal néegu yaaf laaj ko Abdou mu yaay tine Baabore sab xorom bëri bayre teg si di duma mbër mu ndaw ma fenkool si laam bu yóbbu sa bayre waaye man falang ku ma fenkool si laam bu yóbbu sa bayre waxuma dëggam déet ay sant sama yaay bu baax julli si yonent bi sant sama supporters yi di sant sama doomu nday Ardo xaddiwul di sant Iran Ndiaye di sant Amadou Fall dem jëm teeri Libidor Tony Junior sant waa jandeer yëpp ñëpp ñu si jàpp waa diaspora bi fàttewu ma leen waa diaspora bi maa leen sant di leen bu baax di Abdou Abdou Aziz Ndiaye maa ngi lay bëgg président ASC jandeer maa ngi lay bu du woon yow tey du ñëw si làmb ji yaa def lépp tey ay carax lañu indaale ay carax amuñu sa oto bi ñu indi. dina baax na hmm? dina baax. di sant sama grand Mor Ndoye dafa bàyyi yitteem bàyyi léppam ñëw di sant sama mag Mbërëm Fall sama yaay ñëpp famille bi di sant ñëpp làmb dafa metti làmb dafa metti depuis koor gi ba tey ñu ngi préparé dem nañ ba yoratun xaalis di sant waa jandeer ñëpp ñëpp ñëpp mu limul maa ngi juum sant naa la bàyyi incha allah bàyyi na la xel baa ngi lay jël tourné mbay gi dama koy daan entraînement waa tournel puusal tuuti aca mbokk yi bàyyi xel mbokk yi bàyyi waa aca jëlal 77 non ñee mënoo leen a xaar waxal ba pare wax fee ñee mënoo leen a xaar dara na day taw aca mbokk yi bàyyi xel Wassintor ndeysaan doomu bawol ji di takkee Medina ndeysaan yaakaari bawol bokk ci ñi nga xam ne làmb da koo bàyyi xel muy champion di waas nuyu naa man lay fay ginnaaw ma sant yàlla jur si yonent bi sant samay ñetti sant sama papa bu baax a baax a baax dafa sonn ci combat bi chaque jour moo may jox réer ndékki añ bongo bu toll ni man sama yaay maa ngi sant bu baax a baax a baax tey bu may gën a kër ga dafa jooy bi mooy sama cinquième victoire ma defet am naa cinq combats maa daan bébel tonne dan doomu kunun daan cinq tonnes daan bébé Cheikh Mbaye euh, ak kan ak bébel tonne maa ngi ci cinq victoire ba Jaxal na ñëw ñu bëre wala liñ jaago dama barke balaa ñoo xam mbër laa ma jeexal booy fii gars yi dañ rek léegi li nga bëree waaw ku la conseil li nga bëre. non man damay contact sama grand laay soppi ci ginnaawam laa ne moom may teg lu métti barke Roussay day lu ma amee combat lépp lay bàyyi su ma mënee bëre à laay soppi barke Roussay kii yàlla rek xolam la koy fay kii ñëw sama bëre gis na lu may daj dama entraîné ñu ne ma entraîné woo da nga topp événement bi di jaay man commerçant laa gars yi balaa ñoo xam ne man mbër laa ma jeexal leen woo comédien fee laa koy tegee man mbër laa nekkatuma yooyu siw naa làmb xam na ma dootuma defati yooyu damay ñëw andi jom ful ak dama koo duma ci xeex bi dañ ne waas mënul xeex man homme de bazar. du leer homme de bazar. bagaar yi nga ko bagaar da nga koo jàng wala. dama ko dóor ay góor ba mu noyé ma daw jàpp ko man plateau Dakar plateau laa ma doonee ragal yàlla na ma sabar jël addiya grand combat bi ba petit combat bi premier bi suñu saako ceeb ñoom ñoom ma ma daan leen te kenn du ci leen. benn fépp ceeb. waaye yow xool nga ma man ab bind tabaatin laa yor war naa mën a am ci lamb lu ne. millions yi dafa war a ñëw fii. daa war a ñëw ba woon barke Seyna Mohamed yàlla baax na. waaw ñoo lay fay. rafet na. acca arbitre bi soufflé na combat bi dox ci diggante ñaq jariñu ak boy jaxaaw ndeysaan ñaq jariñu boy jaxaaw laat bu armé xaritu yaay ja bëgg naa la euh, presse Khadim Fall naa la Lamine Saloum production wala Lamine Sarr Medina bëgg naa leen ndeysaan ñaq jariñu ak ki nga xamante ne nii mooy saba ac ñaqi ak booy jaxaaw ndeysaan ñaqi jariñu booy jaxaaw ñaq mu ngi def ay ay ay ay darsa di def pay fii pay ay waay bëre xale ak mag ndeysaan booy jaxaaw ñaq jariñu ñaq jariñu booy jaxaaw ñaq a ngi def mouvement arbitre bi woona leen ci digg làmb ji ndeysaan avertissement benn avertissement pour ñaq jariñu précis maa ngi lay bégee grand Moussa Diop ndaw Kounda père Mbaytin Bamba Khadim sama yaay ja daam taximaan bu mag bi ay ca ñaq jariñu ñaq booy jaxaaw ñaq salaay booy jaxaaw daan na ñaq jariñu jaru door daan na ko xale ba daan na ko laa ilaha illallah sof sama xoyaan njaay ba daan na ndeysaan moom de booy jaxaaw ndeysaan ëmb seen waxoon na ma ko nee na kii na ko lamb bàyyi xel samba xoyaan njaay la satu samba xoyaan ngom jarbaat la ci ki nga xam ne mooy ëmb seen magam ma jur kon kon kon lamb dellu na fa mu nekkoon. nee na ma kii mooy sama relève. ëllëg ci lamb. ci ëllëg ci lamb nee na mooy jërël. te galaami Kole ndeysaan doomu pikin ji daan na ndeysaan. Eh! tapi nga door ko kii mag la. waaw moo loolu loolu dama ko doon dama ko woon ni. dépasse daw. xam nga dépasse la daw trois jours ma dama liggéey barki seen naam du pour moom Sara maag Sara la woon Sara feebar xam nga dama loolu Sara dafa feebar xam nga yàlla tànnal na jàmm waaw naa ko woo après quoi bu ñëwaatee état ñu ngi xool leneen nekk moom côté quoi waaw ñooy xool leneen xool leneen état nekk ñu pour moom bilaaxe maa ngi nuyu nag ama seen sama gaay bilaaxe grand combat bi ku daan soxla naa la. grand combat bi. ku daan soxla naa la. fii suñu ci yow. wër na yàlla ñan. ñi lan lañ ma ëppee. surtout Samba Xaar Ngom man sama mag mooy làmb. loolu dafa lay dara bëreeguñ sax. bilaahi. wuyul kooku. kii ka la xaw ma ko. du ma waxoon ma xaw ma Caatu Aida nekk na Robel yi arbitre bi Robert moo ñu woon ginnaaw Caatu Aida lañ jàkkaar lool ñoo ngay lewaatoo ñoom ñaar non xanaa xale dañoo tolloo Robert 2 à gauche Caatu Aida eh jël na tànk ba da koy daan da daan daanu na jeex na jeex na laay kan moo caatu ayda daan na Robert doo kuubu dal daw jël ko oh vite fait caatu ayda caatu ayda daan na Robert dal kuubaa dal déggoo li ma la wax laay des fois bu la dooyee kuu xel maay dem <laughs> oh vite fait bien fait ay xale bu ñu entraîné dañuy ñëw bëre daan jóge fi daan jël bu rëy caatu fora ngi noonu dugg si jigi géew bi alliance Baldé aca mbokk yi bàyyi xel euh, tey Habib l'écran moo ñu fi woowoon combat bi doxoon ci diggante caatu Aïda ak ki nga xamante ne nii mooy booy naka. Robel Robel nuyu naa. maa ngi caatu Ayda ziar caatu Ayda nuyu naa. waaw naa lu baax alhamdulilah am nga taw waa waaw sant yàlla baax a baax gaay. combat bi li nga bëri la. maa ngi sant yàlla baax di gërëm waa Joal Fadiouth di ñaan sama papa fu mu tëdd yaay bu baax di ñaan waa Joal Fadiouth ñëpp di di leen baalu àq nag ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp parce que lii taw bi sax moo tax ñu bëri ñëwul taw baa tax ñu bëri ñëwul mais combat bi wax dëgg fa yàlla ah lu ma entraîné la may bëri ñoo répété ñoom dimle ñoom góo ñoom Modou Ngom ñoom Atee gannaaw yooyu noonu du ma entraînement lu métti métti wax dëgg fa na yàlla na ma boo àggee bëral li doxal nii yoo am ndam. ñëwal ci li nga bëree laa soxla. waaw su ma bëree dafa dox sama kaw ma ñam ko góos mu ëttal rek ma jël ko mu jeex moom moom man moom bëre moom kenn du ma ko jàngal yaakaar naa naa. daa wax ne da lay dóor. ngeen jox am jóob joxal njaay. waaw ma ma dóor ko mu kaw nga fekk ko fa yegg. waaw ma eggale ko dóor amul njëriñ daa ma daa ko rek moo gën a sedd quoi. moo ëpp njëriñ quoi ay eh, dóor moom yii nii. foo jëm. man si kaw. mooy ñan. ay tafla bi ay ay talfa nekk fii di wax ay Pokola na ma leen jox. talfa Pokola waaw. ni ma na ma leen jox nee na sa avancé bi Dakaru Ndiaye. waaw dóor mu daanu. waaw daa mën a xeex ko dóor mu xeex mbedd nga daa ay mu daanu. dóor mu xeex mbedd la xeex. xeex mbedd boo jàkkaarloog moom. bu xeexee su bëggee ñu teg amul amul songo ma dóor ko mu tëddal boppam waxuma la caaxaan waxuma la caaxaan. Eh, dóor ba mu tëddal boppam daa mel ni mu ngi ñëwaat ci laam de ku ko fi indi woon la sayaati bawal. Ah. dóor ko sama ko la maa ko nuyoo passage sama avocat la bu baax a baax ate cant ak ngërëm gërëm naa leen baax a baax sant ñëpp gërëm ñëpp yàlla defal ñëpp jàmm salaam alhamdulilah aca merci beaucoup waaw gërë gërë laa dal affaire yëpp alhamdulilah maa ngi leen sant yàlla bu baax a baax maa ngi gërëm bu baax a baax a baax di sama copain Fara moo ma dalal quoi kii moom moo nekk fii gërëm da ante nag ñoom maire ñoom awa ñu ñëpp maa ngi gërëm di ziar ñëpp di gërëm ñëpp moom macha allah quoi ñu ngi dëgg taa stade bi mais <laughs> naka dañu ñëwoon avance na ñëwaat waaw waaw Zale stade ñëw. Ami Collé joxaat ko avance mu yóbbu Fanaano. waaw après mu jóg na na toog njigli kañ. moo tax ma ne ko jox ko avance. 1000 francs rek 1000 francs kese moo toog njigli ma dem ñibbi. jeex na tàkk ayca <laughs> merci beaucoup. mbokk yi ñaari xale yaa ngi ci digg géew bi. Matu. Thiatou Fora Alliance Baldé Thiatou Fora moo ñu woon ginnaaw Alliance Baldé la nu jàkkaarloo Habib baa ngi laaj ay jugeem journée Habib Farhat production Thiatou Fora mbokk yi sànni na sangoor Alliance Baldé ngi jàkkaarloog moom Alliance Baldé Thiatou Fora le waa too bi soriantoo nañu ñoom ñaar. ñoom ñaar ñëpp ay xeesa booy lañu. caatu fora gën a xees mooy pël bi nee nañ bu xees baa ngi noonu. caatu fora alliance Balde alliance Balde cokkaas na léegi door na xeex nañu ñoo ngay xeex caatu Balde alliance Balde ñoo ngay xeex door ko mu rëpp takk na ko takk Thiatou Fora Alliance Baldé ñoo ngay bëre tegal na ko daan na ko tegal na ko 16 daan ko Thiatou Fora daan na ko Thiatou Fora Alliance Baldé oh Thiatou xeex nanu lamba gi noonu takkindaa bu xees bi daan na ko jël bu rëy waay lay lay la la takkindaa yi woneete noonu seen bopp fair play bëre nanu xeex nanu yàlla may na dem ki nga xamante ni mooy caatu fora alliance Baldé dama defaru ji wane nga jom fulla ak fayda lamba gi noonu semaine prochaine ñu dem ko fii fekk bureau bu yoof mag mu toll man paas dem yoof jël taxi ñëw xam lu ma def ci taxaw ne ma ana médical ma ne ko mun sama saak ma ne ko fii nga jëlee ci mbedd mi mu ne ma waaw moo bi sama saak jox médical mu xool na ma baaxul fi def deux jours ma entré fii hôpital euh, bu nekk Pikine Dominique ñu defaat médical dem dem ci médecin bi ñu ne voyage na njàmbe ne na ko photo envoyé ma ko xoolal wax jooju ñu photo ko envoyé ko mu ne noo Ousseyn moo fa woote Ousseyn woo na ma man ne ma Ousseyn mi woo na ma ne ay boo bëréwul dañ lay aj pour man Ousseyn du promoteur laa war a lijjanti journaliste am dëgg la wala dëgg mu woo ma ne ma ay boo bëriwul dañ lay aj am na benn booy boo xam dañ ko aj man taalibe laa dama ñeme li may def ragal taxul ci man. mais laa jëndee. Ouzin wax na dëgg bu fekkee bu fekkee médical bi dañ ko rejeté. waaw boo bëriwul dañ lay man bi ñu bi ma njàmbee wooyee rejet médical bi laa xam ne dina bëri. ok damaa jugee hôpital tey deux la laa génn hôpital. continué stade kii moo jënd ngeen mu ndaala. deux heures nañ waxtaan. non dañ lay wax dañuy waxtaan deux heures ku samp butéel ba deux heures. wax dëgg yàlla war nañ laa wax ne saa yow mënoo bëre mais ma génn hôpital deux heures kii moo jënd ngem bi léegi indi sama yére sol ñëw parce que xam nga lu tax man taalibe Serigne Touba laa ma dara damaa ñeme ñëw naa bëri na yàlla def na li gën dama koy sante suñu borom bu baax bu subaa ma fogaat samay daal dem entraîné ñoom mun mënuñu ma xañ mënuñu ma may yàlla moo ma mën a may moo ma mën a xañ maa ngi koy gërëm di ko sant di ñaanal Sénégal yëpp ja di wax journaliste yi liggéey journaliste yi boo ci nekkee da nga ciy yem ci liggéey léegi sànq bi ñu leen présenté wax bi kàddu bi da nga koy yëkkati waaw mais am na kenn ci membre CNG mooy mu ni quatre fois ces quatre derniers combats yëpp da nga dem déposé loolu am na wala amul su fekkee mus naa déposé médical lu dul benn tey médical hmm. yàlla bu ma gisanteeg sama yaay tey maa ngi doog a déposé médical bu ma duggee ci làmb ba léegi bëre quatorze combats c'est la ma déposé médical man li may def mais dafa war a rafet ñun ay doomu jàmbur la ñàmme am na doom mais na doom kon war na ñoo jox ñun mënuñu génn hôpital deux heures di ñëw di bëre mais nag sant yàlla yal na leen yàlla defal jàmm yéen ñi fi nekk. ñëw ñu ci combat bi. waaw dara sant yàlla rek. maa ngi sant yàlla julli ah. waa jàmm gën. Eh, surtout madame la maire daa def tey geste bu garaaw sant waa jàmm gën yëpp barke yàlla di sant Baye Fall di sant Derki Ndaye tey dañoo taxawu di sant boo yëpp barke Alxuraan xaw ma seen fay. ñëw ci combat bi. waaw ah, combat bi man de xaw ma sa nu ma bëree en tout cas daal dóorante nañ man ak moom jaxasoo nañ jël naa coup jël na coup waaw. sinon ba na ko daan. ah en tout cas ma song ko xaw ma daan laa ko daanee. Hmm. billaay. fii la taxaw ni contesté nee na dafa dafa dafa feebar tey hôpital la jógee ñu bëri. dafa feebar waaw dama koy nangu parce que yëgu ma fi mu nekkoon. waaw maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla may tan may ko wér bu amatee làmb suñu borom may ko ndam bu waa jaamu gën di waa jaamu gën yëpp barke di sant sama gaay ma àndal sama mbokk xalpulaar yi eh, eh, kenn musul gis lii mbay door na nen ba nen ba tojul Pawlish jël ko def ko ci ngembam génn na Pawlish Mbaye ak Mbaye <laughs> Mbaye Kouthia Pawlish dama lay luqi de yow Pawlish Mbaye ak Mbaye Kouthia abi sëf la waat na ci diggante Mbaye ak Pawlish eh door na ko door na ko daw na daw na ko yàlla Pawlish door na Mbaye <laughs> Mbaye de xamul lu xew fi mu toll nii Pawlish Mbaye daan na Mbaye Pawlish daan na Mbaye Kouthia làmb ja jeex na mbokk yi ñaari xale ngi noonu ci diggi géew bi Ardo ak Saba ci nekk yaa ngi ak say dernier réglage xoolal ma élage la muy sotti kii di arro ci tànk ya am na lu muy muy sotti ca tànk ya moom élage bu jéen ardo am na benn benn bant bu mu samp benn mooso bu xonk xoolal moom la Serigne Ba yor ko dindi noonu Saba ngay sëlmu Saba ak ardo ngi noonu ci digg géew bi Saba Ardo Ardo am na benn butéel bu mu ñëw dóor na yat ba dóoraat na ko ñaari yoon dóoraat na ko ñetti yoon moom Ardo yatu kel la de <laughs> ko xam pël xam koog yatu kel da koy sampaat wala da koy joxe sampaat na yat ba waaye waay zan puusal waay gis nga Ardo samp na yat ba moo nga koy bës Ardo ngay samp yatu kel ba. am na lu nu koy wax sabaari gis naa ko mu yóbbu benn butéel waaye maa ngi gis seex xoolaat lépp làmb am na benn butéel benn kii mbuus bu mu sànni sëriñ ba gatandu ko ak leket ba amete ngi noonu ci diggi géew bi lan la andeeti axasu na ci benn yoon moo nga koy sotti ca loxo ya butéel ba jeex na yu cax na ko mbuus ba nu ma koy def ah ngay sotteeku oh xale yi dañoo xajam Saba daa ni noppi na fi mu toll nii Saba Ardo Saba supp na benn bëtu oomam am na benn fas bu muy tàllal Ardo am na la mu ñaan Ardo ngay dem ci moom. romb na ko tibb na ca tànk ba sabaa bañ na tibb na sabaa bañ tibb na ko joxe sabaa tibb na tànk ardo coy làmb lépp tektel la làmb daal lépp tegtal la ardo noppi na Ardo am na lu ñu koy wax ma ngay defaraat gàllaaj ya ma ngay takk sengoor bi Seex du si na am na benn sengoor bu mu yor taalal na ko ko takkal na ko saba Ardo tamit taalal na sengoor moo ngi koy takkal boppam supp na benn bëtu oo taalal beneen tànk ba Ardo am na benn sunguf bu mu sotti seen diggante na Amazing. ต้องไปไม่ได้ฮัลโหลฮัลโหลว้าวดังมั้งน้องกินด้วยมั้ยน้องกินด้วยมั้ยว้าวว้าว Ardo noppi na Saba noppi na Ardo dafa mel ni dafa niin Ardo daa mel ni daa niin Ardo ah, noonu ñu koy fomp Cheikh dugg si waat na ci digg géew bi Ardo noppi na Saba noppi na Saba am na benn butéel bu mu yor sànni na ko ci ginnaawam Cheikh jël na butéel ba Ardo am na luñ ko jox mu sànni ko ci ginnaaw Saba Saba am na lu mu yor fu mu koy def sànni na ko ci diggante tànk ya jël na protège dent ba Ardo ak Saba arbitre baa ngi wax ak ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ Saba ak Ardo àndoog Saba arbitre bi laaj na Saba mu ne ko pare na laaj na Ada ne ko pare na arbitre bi sifflé na dañuy daje Ada eh, cokkaas na Saba Ada Saba Ada dafa bëgg a xeex ak moom Ada ak Saba Ada door na gauche door droite Saba pivoté ñu jàkkaarloo waat ñoom ñaar eh. Ardo dafa mel ni dafa bëgg a xeex ak moom Ardo ak Saba Saba wa ngay defar Senghor ba journée Habib Fakhat production Saba cokkaas na léegi Saba cokkaas na léegi Ardo duwaat na Ardo ak Saba xale yaa ngi lewaatoo ñoom ñaar Ardo mbokk yi moo ñu woon ginnaaw Saba la nu jàkkaar lool Ardo bi fi jóge moom Mbañi Kayré la woon grand combat mu daanu Saba bi fi jóge moom Mathieu la woon grand combat moom tamit daa daanu eh combat bi combat yërmande la ñoo ngay dem ci wetu saako yi waaye saako yi fekkiwul ken Ardo moo ngem boo ngem lu weex li teg ci xonk bi Saba moo ngemb moo ngemb lu ñuul li Ada cokkaas na léegi Saba reculé waaye dalul Saba daa mel ni da koo bëgg a jàpp Saba daa mel ni da koo bëgg jàpp Saba cokkaas na léegi Ardo Ardo ak Saba eh Saba Ardo door na ko léegi daw gëtoon ko Saba reculé Ardo lu mu bëgg a bëyal da koo bëgg a jàpp door na ko door na ko door na ko. Addo Saba Saba da koo a jàpp Saba da koo bëgg a jàpp waaye Saba ni nga yoroo baaxul Saba ni nga yoroo baaxul da lay seen booy ñëw Saba la mu bëggoon def na ko Saba la mu bëggoon am na ko jàpp na Saba jàpp na Ardo ndengeen nañ Ardo nga dooyu saw ci suuf dooraat na Ardo Saba Ada door na yu sew ci suuf yooyu kaani tëmbal la Saba moo ne woon ginnaaw lépp mën na cee nekk Saba ku nekk yaa ngi déglu sa morom Saba wàcc na Saba wàcc na Saba wàcc na daa bëgg a jàpp ca gaño ga Saba ngay dugg Saba ngay dugg tegal na ko siège léegi ma ngay forcé Saba ngay forcé Saba na ko siège daan ko Ardo daan na Saba lay lay la la Ardo daan na Saba xoolal la muy def Ardo daan Saba Saba daan na jël bu ko bett ko forcé Saba Saba laabu kenn ko forcé Ardo daan Saba xoolal policier la def Ardo daan Saba Ardo daan na Saba Ardo daan na Saba la muy def xool ko kankuran ba ma ngay dem ca Saba Ardo daan na Saba da bu ko tegal sées na ko kaay nga tëdd mu bañ. teel ma teel ma ma dugg teel ma. baay. damu bee ñëw. nga bëgg xale bi. jërëjëf moo gis mu lay forcer di lay imposer doole. jërëjëf borom Touba sant nañu yàlla bu baax. am fi yéen rek ñu xam nga lu tax ah, bi léegi ma wan ni maanaam maay sa manager. léegi di xéewal bëri jox ma di ma jàppale. di def loolu manager bu lu mu gis xam nga yëngati xaalisam jox ma. musul musul dagg reliquat musul dagg li kaaw loolu dam jàpp ba mu yegg si abi sifflé nga dox ci kawam di ko imposer bëgg a moom waaw parce que déggoo li ma la wax li tax ma jël combat bi du ma si bàyyi virgule di sant ñi si jàpp ba mu yegg si eh, di sant ñi si jàpp bu baax a baax bu ma limee rek damay jub waaw mais kontaan bu baax a baax bàyyi leen loolu ardo ardo ñëwal ñu ci li nga bëre waaw li ma bëre mooy consigne rek newoon naa sa Ousseyn li tax ma jël combat bi boobu ba léegi du ma si bàyyi dërëm. dañoo gis sa waay egg